asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu ñu ginnaaw bu ñu santé yàlla suñu borom euh, julli ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam euh, sant suñuy ñaari waajur waaye itam duñu fàtte euh, gërëm ki nga xamante ni bi rek moo nekk Thierno Moule Sow mu di kilifa kër gi nekk the king waaye itam dañuy daal di jaajëfal itam ñi nga xamante ni bi rek ñooy jàpp liggéey bi ba mu gën a yemb muy technicien yeeg journaliste yi ak ñi nga xamante ni bi rek saa su ne ñooy faral duñu jàppale ci liggéey bi euh, waaye itam duñu fàtte ñi nga xamante ni bi rek ñoo ñu bëggee duñu safoo euh, di ñu seetaan à TMS TV waaye nag euh, ñëw leen ci seen émission bi nga xamante ni bi rek moo nekk euh, Actunet Actunet nag taamu ngeen ko fii di ko seetaan à travers TMS TV nee naa leen TMS TV mooy feeñal lépp lu nëbb waaye fii lay tàngee waaye itam fii lay euh, fii lay seddee waaye nag ami internet yi comme ni ma leen ko waxee rek émission Actunet mu nekk lire commentaire waaye dañuy indi ay coppite ci suñu wàllum émission bi boobu di Actunet ñu daal di euh, laataa ñuy tàmbale euh, ci euh, déglu reportage bi nga xamante ni bi rek moom la ñuy daal di baaxel internet yi nga xamante ni ñun ñu safoo du ñu seetaan à travers TMS TV dañuy daal di lire commentaire yi nga xamante ni ci vidéo yooyu yi nga xamante ni moom lañ daal di sélectionné tey ñu daal di tàmbale ci vidéo bi nga xamante ni bi rek mu ngi porté ci Thierno Moule Sow depuis Allemagne kaani poobar ak kaani poobar fin ah, ci loolu nag itam ah, dañuy daal di gis benn internaute bu ci mel ni Laay Njaay Laay Njaay nee na cey Thierno Moule Sow billaahi yow uh, ndaanaan ngay uh, ndaanaan nga da ngay faj nit di ko delloo wërsëgam uh, ci loolu itam ñu gisaat beneen internet bu ci mel ni Mariama Ba moom itam naan man de ma waaru ci Thierno Moule Sow ba may tëdd laa def 3 Thierno Moule Sow ma ne dama bëgg xam ndax ku may tàkk ndax suñu wërsëg ànd na ma daal di gis ay misaal samay gént billaahi lu may wax ni dëgg bu wér la yàlla yal na la yàlla guddal say uh, fan uh, barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye itam uh, dañuy daal di liiraat beneen internaute commentaire am kii di Kiné Ndaw moom itam naan salut Sénégal dañu sant nañu sant yàlla ba ñu amee Thierno Moule Sow mu nekk sénégalais avec Thierno Moule Sow jàmm rek mooy am macha allah il est très fort ci loolu nag duñu desandi ci loolu ñu teewlu ànd ak yéen sur reportage bi nga xamante ni yéen amee tono yéen ko yéen lañ ko daal di euh, jagleel la. soxna si ñu ngi lay nuyu ci TMS TV euh, di la laaj tur bi sant bi ak fan nga jóge. maa ngi leen di fay. asalaamaaleykum. Euh, maa ngi jóge ba Thiès ànd ak sama magu doom sama papa yi doom bee laa àndal. man ak sant bi. man Farmata Balde laa tudd. Thiès laa cees laay sëy. som euh, quartier som mhm. ñu bëggoon xam lan mooy sa tànk fii euh, lii sama tànk mooy sama doom jee laa fi indi waaw pour mu gisanteeg sëñ bi waaw parce que damaa yàgg dégg ay mbiram yàlla dogalul ma ñëw fii après magu pàppam bi moo ma indi fii pour ma ànd ak moom mu ñëw fi ñu sëñ bi xoolal ma yaramam daal loolu moo doon samay tànk tey alors ñu gis que ni ñëw nga kër gi euh, nan nga ñu mën a wax ci organisation kër gi. macha allah wax dëgg yàlla am nañu teey am ñu yar mën nañu dalal nit te xam nga boo yoree malaat mu ñëw si yow te dalaloo ko xelam day gën a naaw wax dëgg yàlla dalal nañu yaru nañu am nañu teey am nañu kii daal compréhension wax dëgg yàlla. nan nga def ba xamanteeg sëñ bi. sëñ bi nag yàgg naa koo dégg mais yàlla daa dogalu. soo toog ak moom. non mosuma toog ak moom. nan ñëw fii yow nga def ba gis. Ah, sama papa doom be moom moom mos na fi ñëw mos na fi indi malade moom moo ma woo depuis Vélingara après mu jël oreille lu Vélingara ñëw bu fi jël si ma cees ma ànd ak moom ñëw fi waaw moom fi indi. fan lan ngay daanelee lan nga ñu mën a wax ci sëñ bi Thierno Moule ah, sëñ bi moom macha allah ni ma ko gisee nii moom ku baax la. ku mën a dimbale nit ku am yërmande waaw noonu daal laa gisee wax dëgg yàlla am naa ci moom yaakaar torop ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu ngi lay nuyu di la dalal ci TMS TV di la laaj tur bi ak sant bi ak fan nga jóge man Mamadou Diom fii Jean Pierre laaj tudd euh, Maris Maris laa jóge quoi. nga am ñoo àndal fii ñu bëggoon xam lan mooy seen tànk fii non dañoo ñëw fii nii parce que man sax c'est la première fois may ñëw fii nii. c'est fois nga ah, c'est la première fois quoi ma ànd ak sama yaay ak sama rak ak sama mag bi nii nga xamante ne moo dafa feebar moo yor feebar bi nga xamante ne moo tax nu ñëw fii nii le problème n'était en nekk instant bi ñu toll nii dafa dem ba sonal ñu quoi. Ah, dafa sonal ñu parce que moom lu mu doon wax ak nu mu doon dundee ak gaa yi tamit. dafa nekkoon loo xamante ni dafa métti woon de trop ba léegi nu tegtal ñu fii nii moo tax taxoon ñëw seet si sëñ bi ñëw teew seet si sëñ bi waaw. sëñ bi xam ngeen ko. sëriñ bi noo xamuñu ko. parce que ba ñëw maa ngi koy door a gis ni ko dañ ñu tegtal fii. Ah, dañ leen waaw ñoo tegtal ah, fii. nan ngeen gisee organisation kër gi. non lépp lépp ERA quoi tout est pour terminer ci sëñ bi. xamu leen ko mais dégg ngeen ko lan nga ñu mën a wax ci sëñ bi. waaw sëñ bi moom d'après lu ñu lu ñu ci dégg ci ñoom moom vraiment il est très extraordinaire quoi waaw mun na lu muy def lu mu def moom vraiment mun na ko trop xam macha allah quoi. jërëjëf Pierre. di leen jaajëfal ci euh, seetaan boobu ngeen seetaan euh, boobu le reportage mi nga xamante ni bi rek wàllum illustration la euh, ci liggéey bi nga xamante ni moom la kilifa kër gi di def ci wàllum jinne ak ci wàllum dëmm waaye nag dañu xuus ba tey liiral leen beneen vidéo bi nga xamante ni moom lañ daal di sélectionné mu ngi porte rek ci des choses à savoir chez le khalife général Thierno Moule Sow ci loolu itam ñu gis benn internaute bu ci mel ni ay Ba moom à temps Thierno Moule yow sama malade euh, sama malaad yi sax mënul jeex sa malade yi sax mënul jeex nga bëgg euh, dem Gambie pour def euh, don defal fii don ba pare ci loolu nag itam ñu gisaat itam benn internaute te ñu jeexintal foofu ñu di ko woowee Modou Badiane moom itam naan non naa la fonk naa la ndax photo Cheikh Cheikh Seydi El Hadji Malick yi bëgg naa te yàlla tax bëgg naa la te yàlla tax euh, loolu nag nekk na li nga xamante ni bi rek internet yi ñoo koy faral di wax euh, du suñu kàddu waaye nag euh, internet yi ñoo koy wax ba tax ni ñuy daal di refléter seeni commentaire ci à travers vidéo yi nga xamante ni bi rek moom la ñuy daal di diffuser à travers TMS TV am internet yi fii la ñuy daal di ndar képp ak yéen jox leen dig dëcce ci yeneen i jotaay émission Actu Net